commission yeeg yooyu xëy na dinañ leen ci yaatalal lu baree bari faram fàcce leen ko ànd ceeg suñu euh, confrère nga xamante ni mooy Mountaga Diallo ak jigéen ñu ngi koy nuyu bu baax Mountaga ñu ngi koy nuyu di la bàyyi nga nuyoo téléspectateur Ngalam TV yëpp foo de maa ngi lay fay nuyoo di amati mbégte laay wax euh, daal di teewaat ci plateau Zoom politique mm-hmm. comme niñ ko defee woon baaxoo di ko def saa su nekk chaque samedi ñu ñëw daal di yéem a ataale lepp li nga xam ne suñuy euh, yaakaar na askan bi euh, mu nekk nag loo xam dañuy nuyu suivre à travers Ngalam TV moo xam si YouTube bi si Facebook bi ak fépp fu ñuy waay di seetaane ñu ngi leen di de retour si euh, Zoom politique fas nag waxtaanee li nga wax ni di législature bi mm-hmm. lépp li nga xam ci bureau de l'Assemblée nationale ñu fas ko leeral ci kanam mm-hmm en tout cas xamna ni ñu ci bari ñu may wo fan yépp mhm. di di rafetlu bu baax émission bi. Mhm. ndax lu ci bari bari ñu ko ci jàngee. Mhm. man leen galam TV mom sa ah. su nekk non la. dañuy indi lo xamanteni ni askan bi dañ ciy gis seen bop waaw ba tax na ñi ngi nuyu ñi nga xamanteni ñi ngi ci Facebook bi di ñu suivre ak euh, YouTube bi ak ñi nga xamanteni ñi ngi Europe partout dans le monde rek ñi ngi leen di euh, nuyu bu baax a baax di leen ciar mais xamna ni bala ñoo dem euh, ci li nga xamanteni mo wara am fële ci ensemble national après. ci wàllu bureau yooyu du ñàkk li nga xamante ne xew-xew la dem ba tey mhm. ah, sénégalais yi ñu ngi ciy waxtaan muy li jëm ci wàllu hôpital Dantec mhm. gis nañ ni fi mu toll nii ah, dañ ko war a defaraat ba malade yi ñu ngi leen di yóbbu ci yeneen hôpital yi ba la ñëw dugg ci waxtaan bi ñu bàyyi la nga jàngat ci loolu effectivement Fodé mhm. euh, dañu dégg démb comme information que dañu war a euh, toxal ñi nga xam ne si ñoo nekkee ay malade foofu ci hôpital Aristide la Dantec Euh, mu nekk nag euh, loo xam ne jur na njàqare ci population bi mhm. te lu anormal la mhm. parce que yaakaar naa ne su ñu waree def lu ni mel war nañ euh, li nga xam si ni moom moo di mhm. li nga xam lépp li nga xam si ni moom moo di loolu war nañ def communiqué ba nga xamante ni askan bi danañ xam bu baax a baax d'ici six mois ñu mën a régler lépp li nga xam si ni moom moo di ñu prévoir évacuer aussi malade yi nga xam si ñoo doon ñëw hôpital Aristide Le Dantec mu nekk hôpital boo xam ne yaakaar naa ne depuis indépendance la woon ñu ngi ko construit woon ci atum 1906 léegi nii muy fonctionner ci li nga xam si ni moom moo di euh, wàllum wér-gu-yaram fii ci Sénégal euh, colonial li dañ ko fi defoon pour ñi nga xam si ñoo sax ñooy famille diminuée yi ñuy mën fay dem di fa fajoo ji mm-hmm. mais suñ demee ba egg ci état boo xam ne état du Sénégal jël na ni gis na ni war nañ mën a tabaxaat bi la euh, structure mm-hmm. structure vraiment waroon nañu informer ñi nga xam si ñoo di citoyen à mm-hmm. temps réel ba nga xam si ni lépp danañ ko mën a suivre mm-hmm. mais waruñu jóg jóg rek daal di jël ay mesures yoo xam ne si ni mm-hmm. du xam yan dégâts collatéraux moo ciy topp yaakaar naa ni boo xoolee hôpital bi nga xam si ñëpp dañu fa miin xam fa saa bu ñu feebaree dem foofu fasi ne faa fajo yi bu ñu xëyee xëy bëgg leen faa génne transféré

yaram ñu daal di am li nga xam si ni moom moo di nekk euh, wérgu yaram yaakaar naa ne loolu luñ jar a taxaw seetlu la te a waxtaan la di jël malade mhm. di ko importer feneen lu ni parce que dégg naa démb ñu ne am nañu mhm. nga xamante ni peut seeni mbokk dañuy nekk Touba mais boo bëggee jël ku nekk Dakar fii yóbbu ko Touba mhm. problème lay doon parce que bu fekkee say mbokk pour ñu gis la tamit dinañ daw ay kilomètres yu bari loolu est-ce du metti beneen bi ci topp tamit mooy tey jii est-ce waroon nañoo xaar ñu ne dañuy defar hôpital Dantec sans autant que tey jii mën nañ ko defar ba pare te benn malade bu fa génn est-ce que loolu mënul woon nekk ci lu gàtt rek

d'abord euh, lan lan lan mooy rôle assemblée ba paré d'abord D'abord, d' rôle assemblée nationale boo gisee ñu def ko la deuxième institution. de la république du Sénégal ndax nekk na institution boo xam ne am droit. saytu li nga xam si ni moom gouvernement bi le contrôle de l'exécutif exécutif. exécutif nag ko le président de la république et son gouvernement. Ah. moom moo am dayoo am sañ-sañ saytu lépp li nga xam si état bu Sénégal mi ngi koy doxal te it droit prérogative euh, contrôler lépp lu nga xam ne institution publique la mhm. moo xam santé moo xam financière moo xam lu mu mënti doon bu fekkee institution publique la mhm. nekk fi Sénégal am droit de regard ci li nga xam si moom ngay def mhm avons le droit tamit voter ko vote des lois et proposition de loi mhm. ñetti euh, fonction essentielle Le mhm. contrôle de l'exécutif, Madame, saytu li nga gouvernement bi mhm. ak euh, contrôler les services publics ak contrôler li nga xam ni euh, de loi yi jaar lu politique publique maanaam ni ma la déggee nii mhm. su dee ensemble bu normal bu war a jaar yoon mhm. maanaam li nga expliqué nii mhm. ci ci lu normal loolu moom moo fara am moo fara am kon yàlla na am ci ensemble bii di ñëw bu fekkee démocratie la ñuy woote fekkee démocratie la ñuy woote te yaakaar naa sax xëy na bii ensemble dina wuuteeg euh, yi fi doon jaar ak yëpp parce que euh, composition yi foofu ñëpp gis nañ ni fi mu toll nii changé na lu bëree bëri majorité absolue amu fa kon xëy na bon peut-être bu dee Sénégal la leen ñor euh, dinañ ko kii mais ñu ñu gis ni fi mu toll nii ñu ngi war a jëm ci ci ci bureau assemblée nationale bureau assemblée nationale yi naka lay taxawee. voilà bureau assemblée nationale bu ñu koy def en lu euh, ñu koy def le règlement bi santané mhm. li nga xam si moom article onze. Mhm. Euh, bu ñu basé woo ci li nga xam si moom composition assemblée bi nga ñëw ci article treize. Mhm. article euh, onze bi dafa wax ne bu féké dañu dem ci assemblée nationale bi. première séance bi muy doon séance extraordinaire séance extraordinaire bobu nak dañuy convoquer en plénière lay doon c'est-à-dire bo déggee plénière moy assemblée bo xam ne ñepp député yépp moom ñoo war a teew mhm. député yépp nak suñu teewee léegi dana am ko xam ne mom mo wara nek mo euh, wara euh, moo war a présider séance boobu mhm. te article bi nga xam ne ni moo def lool moy article 2 dafa wax ni ki wara présider li nga xam ne si moom di assemblée bobu moy mhm. le doyen d'âge le doyen d'âge moy ki nga xam ne si ni moom at ci législature mom mo ci gëna mak mag te mu te mu mën a bind mën liir président Abdoulaye Wade bi nga xamante ni moom waaw mën nañ ci séntu président Abdoulaye Wade bu fekkee démissionné te dafay nekk nag koo xam ne moo gën a âgé mhm. ba pare mën a bind mën a lire mhm. moom mooy président assemblée nationale mais nag dafaaw mu am ñoo ne tamit ñoo koy secondé kon tey ji euh, tey bu président Abdoulaye Wade démissionné mën nañ fa xaar ku ci nañ fa xaar Pape Diop parce xam naa ne bu euh, bokk na ci député yi fa mag yi fa mhm. nañ ko xaar mën nañ fa xaar keneen ak keneen peut être euh, moom le doyen dafay am ñoo xam ne ñoo koy secondé mooy les deux secrétaires ñi nga xam ne si ñoo fa gën a nekk gone te mën a bind mën a lire ci wàllum français ñoom ñooy des ñu koy assisté nekk ay secrétaire mhm. mais gannaaw ba ñu toog ne euh, li nga xam si mooy le doyen d'as et ses secrétaires mhm. dañuy daal di dem si li nga xam ne moom moo di euh, appel nominatif mhm. maanaam dañuy rappel député yi luñ ci djoblu pour appel nominatif appel nominatif moy député bu nek dañuy dañ dañ koy wo dal waaw dañ koy rappel. Mhm. mu wax présent wala mu yëkkati loxoom ci xam diw tewna na. Mhm. luñ ci djoblu dañ ci djoblu xol ba xam le quorum est atteint ou pas. Mhm. parce que quorum dafa am lo, am solo. manam quorum boko boko boko déggé moy la moitié des députés. plus un. ñu mëna a am la majorité absolue. parce que bu féké le quorum n'est pas atteint. assemblée bi dañ koy renvoyer. parce que lu ñu jël décision du jall bu faites nag comme ça 83 députés ñëw nañ assemblée nationale. Mhm. mën nañ installer le président mën nañ mhm. passer au vote du bureau. Mhm. léegi le président bu defee appel nominatif ba xam le quorum est atteint maintenant. lu jiitu lolu képp ko nga xam si ni bëggoon nga nek li nga xam si ni moo président assemblée nationale. dang koy dal di dang koy télé a euh, lu mat 4 heures avant. bu ko défé mom day dal lire ni diw ak diw. ñoom nag ñoo bëgg a nekk président su fekkee ku bëgg nekk président. Mhm. loolu maanaam ku mu neex rek ci ci ci biir ensemble bi rek ni man damaa bëgg nekk président assemblée nationale. wala ci biir coalition yi wala ci biir parti yi ñoom ñooy wax ba déggoo. Mhm. pour mën a am seen benn candidat boo xam ne moom dina présenté wu comme président assemblée nationale noonu lay demee wala. waaw noonu lay demee mhm. parce que vote bi il faut am ñu la ci jàppale mhm. moo tax avant ngeen di ñëw dangeen di jéem a construire ay groupe parlementaire rek yu mhm. demee noonu xam naa si kanam sax dana ñëw ci groupe parlementaire yi mais ku nekk day jéem a xool ana ñan ñoo ko mën a soutenir candidat am ba nga xam ne si ni bu déposé dina jàll tax ay waxtaan la avant bu ko defee ñu def ay proposition ba trouver ay accord ba xam ne si ni ñii ñoom jàpp nañ ni mooy seen candidat jëm nañu tamit am nañ nombre bu ko mën a soutenir pour mu jàll mais président bu defee loolu ba pare dafay def nga xam si ñoo bëgg assemblée président nationale vote mhm. vote les mhm. les plus jeunes âges mhm. euh, savoir lire et écrire dañuy ñëwaat lire comme ça maanaam ba euh, voter pour président assemblée nationale kon kon ba tey yaa ngi foofu. maa kon continuer. Hmm. léegi bu bu liiree comme ça mu commencé rappel tamit des députés. Hmm. fekk jox nañ leen seen i bulletins yi nga xam si moom la ñuy voté. te vote nag c' est secret. Hmm. nekkul loo xam ni da ngay xam ki nga votel da enveloppe ngay def dem ci urne bi dugal ko si. kenn du xam koo votel mais te ça dañuy def l' appel. uninominal mhm. moom mooy fal li nga xam ne si ni mooy président assemblée nationale bu ko defee ku nekk dem voté mhm. le temps nag ñu construire bureau boo nga xam ne si ni moom mooy def le dépouillement mhm. bu ñu voté ba pare ñu dem calculer les voix ba xam ku nekk ak ku nekk la am mais bu mu fekkee dem nañ premier tour Euh, ñu xool ni kenn amu ci la majorité absolue mm-hmm. dañuy demaat ci li nga xam si ni moom moo deuxième tour mm-hmm. ñu daal liiraat candidat yi mm-hmm. bu fekkee candidat bu nga xam si yow nekk nga ci ginnaaw ñu liir la bu ñu la liiree nga gis ni yow euh, amoo jegewoo bannière bi mën nga daal di démissionner bu ko defee ñu di am ci deuxième tour bi ba ba ñuy mën a am li nga xam ni moom moo majorité absolue léegi nag bu ñu majorité absolue nag ñu daal di déclarer kooku moom moo nekk le président euh, de l'exercice de l'assemblée nationale bu ko defee ki nga xam si ni le doyen d'âge daal di koy installer bu ñu ko installé rek directement dafay jël fonction bu ko defee daal di présider li nga xam si ni l'élection des autres bureaux du membre euh, de l'Assemblée nationale mm-hmm. bu ko defee foofu nag doyen d'âge bi mm-hmm. ak secrétaire yi dañuy daal dem ñoom secrétaire yi nag dañ koy daal di gungee mm-hmm. ñoom fal li nga xam si ni secrétaire général de l'Assemblée nationale bu ko defee Assemblée nationale bi nak am président président bi nag doo ko daal présider séance bi dal di déclarer la séance la séance ouverte euh, jërëjëf Mountakha ba tey mbokk yéen seen émission Zoom Zoom politique comme ni ñu leen ko waxee rek lépp loo xamante ni war ngeen koo xam fële ci Assemblée nationale rek soobee yàlla di ngeen xam bu ñu jugee foofu ñu ñëw ci vice président yi vice président yi ñaata lay doon ak mhm. naka lañ koy tabbee xam nga vice président yi euh, au nombre de huit lañ mhm. vice vice président mooy am assemblée nationale. Ah. mais le vote bi par liste lay doon. Mm-hmm. par exemple la coalition Benno Bokk da fay am euh, groupe parlementaire. Mm-hmm. groupe parlementaire bob ñom dañuy dal déposer sen liste. Mm-hmm. kan moy nek sen premier vice président jusqu'à euh, huitième vice président. benen groupe parlementaire tamit am nga droit ñeu déposer seen liste. Ah. bu ko défé ñu dal di demaat ci vote bi comme niñ voté won le président assemblée nationale bi ñi demaat ci vote bi à l'appel nominatif ku ci d'accord, ku ci d' accordul. koy voté ñëpp ñeu voté am na ñoo xam dañuy abstenir duñu faire fenn bulletin nul lañuy def assez bu ko defee ñu dal dem demaat ci urne bi dal dépouiller ku ku gagné ñu xam les vice présidents ni lañu rangalé wo 1 mhm. 2 ba 3 ba 8 mhm. bu ko defee euh, président bi dal déclarer ñoo ñoo nek c'est euh, vice président yi ñu mhm. yàlla ci li nga xam ne di mais bu dé groupe parlementaire exemple ñaata groupe lay doon soit day nek 1 ba 5 groupe wala ça dépend bëgg nañ xam groupe parlementaire yi biir assemblée nationale ñaata groupe lay yem non groupe parlementaire amul limite. mais lu mu am mooy norme yi résulté groupe parlementaire. parce que groupe parlementaire. Euh, lu matul 10 députés mënuñu former benn groupe parlementaire. Hmm. foog nga am dix députés. au moins dix députés. Hmm. ñu ngi am benn groupe parlementaire hmm. mais d'habitude, habitude dañuy gis ni bu fekkee la majorité yi ñu doon gis législature yi jàll. comme Benno Bokk Yaakaar benn groupe parlementaire lay am. yeneen opposants yi mën nañ bootu ci benn groupe parlementaire. Euh, ak li ñu woowee les non aligné, parce que bu ñu xoolee ñoom matuñu euh, bootuñ ci benn groupe parlementaire. te matuñu députés. Nous avons les non inscrits mhm. non inscrits maanaam inscrits ci un groupe parlementaire mhm. mais groupe parlementaire amul amul limite mhm. mais nombre euh, de députés lañ imposé ni au fur et à mesure nous avons mënti néew 10 députés ñoo mën construire construire groupe parlementaire Et benn député aussi mënoo beaucoup ci ñaari groupe parlementaire loolu loi bi da est-ce que tu peux expliquer aux expliquer sénégalais yi nga xam le groupe parlementaire ak lan mooy rôle groupe parlementaire xam nga groupe parlementaire pour ñu wax ko groupe parlementaire ña déjà ay groupes yoo xam ne ñoo boot ci benn groupe parlementaire. Mhm. il faut ñu bokk li nga xam si moom di vision politique. maanaam ñoom dañuy dañoo ànd ci ay base politique. Mhm. te groupe parlementaire kenn du ko former ci biir assemblée nationale. Mhm. pour de défendre les intérêts personnels, la loi intérieure de l'Assemblée nationale de koy aaye mhm. boy construire groupe parlementaire da ngay construire ak député yoo xam ne il y en a beaucoup ligne de conduite y en a beaucoup voie bu ngeen vous suivre pour défendre mhm. les intérêts politiques ci mhm. biir l'assemblée nationale euh, moo tax ñuy gis groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ngay gis aussi groupe parlementaire euh, Liberté ak yeneen ak qui ci biir Assemblée nationale un groupe parlementaire dafa nekk ay ay député yoo xam ne ñoo bokk gëm-gëm ci wàllum politique bokk vision ci wàllum politique ñoo bokk ci ñu ñuy doxee ci wàllum politique ñu daal di booloo doon benn say pour am pour nag àgg ci ay décision parce que beaucoup xoolee groupe parlementaire bu nekk mhm. dafa am président du groupe parlementaire am vice-président du groupe parlementaire mhm. parce que président du groupe parlementaire mhm. a occasion mën réunion des présidents mhm. parce que euh, comme président commission le président de ak am réunion mais l'assemblée assemblée nous nii ñu gis quatorzième législature bi nii nga xamante ni majorité bi trop trop parce que boo xoolee ay 83, 80, différence groupe parlementaire yooyu nga yaakaar ni tey ji par rapport ak ni vote yi doon jàllee ak nu mu yombee. Hmm. bi yoon est-ce que dina demee noonu. non bi yoon euh, mën na bañ a demee noonu. Mm-hmm. parce que boo xoolee euh, euh, li nga xam si ni moom moo di majorité absolue bi. Mm-hmm. pour sax ki nga xam ne parti au pouvoir am ko. Mm-hmm. li doon ay majorité mécanique. majorité mécanique boo ko déggee mooy majorité boo xam ne si nii maanaam day gëm ay gëtam. Ah, lépp loo xam si ni jógee na ci chef de l'État ñëw ci biir assemblée nationale muy proposition de loi. Uh-huh. dañ koy daal di voter rek. jàll sans sans débat sans lenn quoi. parce que ñoom ñoo fa ëpp doole ñooy wane seen doole te assemblée nationale ku nekk xam na ni. la majorité mooy la l'emporter Nous, ñi ëpp un mhm. rek ñooy saxal li nga xam si ni moom moo di loi yi tey dindi li nga ni ay proposition mhm. mais ci groupe parlementaire yi nga xam l'Assemblée nationale. moo nar a l'Assemblée bi assemblée nationale. Mhm. maanaam dina assemblée ah, c'est la première fois sur l'histoire du Sénégal. ñu am assemblée nationale boo xam ne dina am équilibre. parce que euh, biir assemblée nationale euh, les débats et les démocratiques. képp ku nga avons fait indi nañ fa proposition de loi nga gisee boo gisee anam am nga droit droit yëkkati sa loxo. Mhm. inscrire ci liste des débatteurs. bu ko mhm. défé nga dal jël sa parole. Mhm. mais di lappale aussi euh, ci liste des débatteurs ñi nga xamni ñoo wara jël parole ci euh, biir hémicycle bi bu féké am nañ proposition de loi. lo xamni ne peut-être assemblée nationale dafa recevoir ben ministre pour mu ñëw défendre budget wala pour mu mën def lénen ak leneen. Euh, ku nekk orateur bu nekk dafa am droit 5 minutes bu féké premier tour bi la. mais bu ñëwee ci deuxième tour bi aussi dañuy joxé rek lu nga xamni moy ay 3 minutes wala 2 minutes pour ñu baña épuler le temps. day xam ne ni ko si. Euh, nombre de députés yi nga xam en général ñoy jël parole bi assemblée nationale. Mm-hmm. fay dal di bari euh, bu ko défé rek débat bi mom non lañ koy organiser. Mm-hmm. sous la présidence du président de l'Assemblée nationale. tay ji tay exemple euh, comme buñuy ñuy wax ci projet de loi et proposition de loi. Mm-hmm. ak ñi ñuy suivre nak motax ndax xëy na ñu ci bari ñi ngi dégg ensemble ensemble mais xamuñu dëgg-dëgg lan moy rôle ensemble. projet de loi ak proposition de loi. tay boko ko doon leeralal askan bi lan lan nga leen di wax lan la. Je euh, ma ko a euh, projet de loi une mhm. proposition de loi mhm. xam projet de loi mhm. c'est le président de la république ou le gouvernement c'est nécessité nécessité c'est une demande sociale le président de la président de la république euh, via son premier ministre va saisir le président de l'assemblée nationale jox un projet de loi beaucoup de un projet de loi le bureau va saisir ses membres Il va convoquer une session extraordinaire beaucoup ko que député yëpp ñu mm-hmm. ñëw dal di jakarlo ak li nga xamné ne modi premier ministre bi li nga xamné ne mom mu dal di def euh, projet de loi bi ñu mm-hmm. xol ba xam projet de loi bobu dañ ko dal di yóbbu nag lu jitu nak dañ ko yob ci euh, commission des lois mm-hmm. commission des lois bobu mom moo koy saytu est-ce que li c'est nécessaire pour ñu jàllale ko pour def exemple rek euh, fàttali touti amon na fi proposition de loi bo xamné mom lañ doon wax ci walum gor jigéen ñi Euh, bi ko euh, sayto euh, commission de loi sayto ba xam ni loolu jaru ko wala mhm. amoon na loo xam ne si ni réglé na problème boobu mhm. dañ koy daal di bloqué daal ni kat lii kat am na loi boo xam ne mu ngi ciy wax kon gis ñu li nécessité mm-hmm. waye projet projet de loi da fay joggé ci li nga xam si moo euh, état bi jëm jébal ko li nga xam si moo président de l'Assemblée nationale pour mm-hmm. mën informer tous les membres de l'Assemblée nationale mm-hmm. di leen ka am na projet de loi bu nga xam si ne bàyyeekoo na ci président de la république ñëw pour ñu jëm ko saytu est ce que dañu koy voter ñu def débat fofu nak ku nekk am nga sa droit xal def say amendement def sa joxe sa point de vue euh, joxe say consigne ba ñu yow ànd nga ci wala àndoo ci mais fekkee proposition de loi da fay nekk li nga xam si ne moom ce sont des députés ay député nag ñoom ñooy xool gis ni c'est un nécessité. Mhm. ñu def proposition de loi ñom ñu c'est-à-dire sen groupe parlementaire wala quelques députés. Mhm. ñu boxtu gis ni kat c'est un nécessité. gis nañ mhm. loi bi ñu proposer ko au commission des lois. commission des lois bobu nak dal di informer le président de la de la le président de l'Assemblée nationale. bu ko defee le président de l'Assemblée nationale dal di saisir ñi nga xam si ñooyu ñëpp ñooy ci assemblée bi. ñi ni kat amna proposition de loi bo xam bayé ko ni ci euh, député yo xam ñom ñokoy signer koy ko pour mën ko yóbbu ci euh, assemblée nationale ba xam dañ ko voté am ko voté mais quatorzième bi mën nañ xaar mhm. ñi nga xamante ne ñoo fare ci kujje gi mhm. dem indi ji seen seen seen seen seen euh, projet de loi seen proposition de loi mhm. tey ji est-ce bu ñu ko indee yow xaar nga tey ji euh, ñi nga xamante ne ñoo nekk ci majorité bi ñu ñu accepté lool Euh, effectivement man dinaa xaar loolu. bu mhm. fekkee. Mhm. à une seule condition. bu que proposition de loi boobu madame, euh, lu juteel askan bi la. Mhm. te it lo, xam ni lu njariñu askan bi la man gis naa ni euh, ñi nga ni ñoo di majorité bi. majorité absolue bi nga ni ni ñi di Benno Bokk Yaakaar am ko. war nañ ko mën vote voter bu fekkee proposition de loi da, fay, jëm ci li nga xam si ni moom mooy yëkkati askan bi moom mooy soxlay askan bi. man je suis pour je suis convaincu que am na ay députés yoo ñu ci majorité bi. danañ voter lu ni mel. Euh, bu euh, mais nag euh, sur des bases politiques mhm. warul tax ñom ñi bañé voter à des lois yo xamni ne ni mhm. intérêt askan bi la mhm. intérêt population bi la parce que askan bi mo leen fi tek tay ñi di président de la République du Sénégal monsieur Macky Sall son excellence da dafay nekkee pour li nga xamni si ni moom mooy jëriñ askan bi dafay nekkee pour li nga xamni si ni moom avancement askan bi ba tey mbokk di leen di fatale yéen seen émission Zoom politique déclaration de politique générale tey soo ko doon wax askan bi loolu mooy la ñi nga xam ne xamuñu si bu ñu nommé premier ministre la déclaration politique générale premier ministre moo koy def mhm. bu fekkee nommé nañ ko trois mois mhm. faire forcément dafa war faire def déclaration de politique générale ah. fu mu que defee devant le parlement mhm. devant les députés de la république dafay saisir le bureau de l'Assemblée nationale saisir le président de l'Assemblée nationale ni ko jours jour tel dañu bëggoon dama de def déclaration de politique générale bu ko président de la euh, de nationale boobu dafay informer tous les députés ni leen jour tel le premier ministre dafay war pour déclaration de politique générale ci déclaration de politique générale le premier ministre dafay ñëw jekkaarloog ñi nga xam di parlement les députés les honorables députés mhm. dans les leen kat ci feuille de route bii lañu bëgg a doxee maanaam gouvernement bi ci anam bii lañ war a defee Sénégal ci feuille de route bii lañ ko bëgg tënk mhm. ci année yi ñu jëm mhm. mais nag foofu nag député yi mhm. ñoom ñoo koy saxal wala ñoom ñoo koy bakkas dañuy saxal est que xam nga ni député yi mën nañ euh, daaneel euh, li nga xam ne moo di gouvernement est que du looloo tax ñu naan tey bu bu bu ku jéggi ëppee majorité biir assemblée mën nañ ah, bloquer ah. réew bi xam nga lu tax bu ko jéggi ëppee euh, ay député ci assemblée ñu mën a euh, nërmel mhm. euh, li nga xam si moom moo di gouvernement bi mhm. par exemple tey bi président boo premier ministre bu defee déclaration ba pare xam nga dañuy mhm. voter pour da saxal ko wala dañuy voter pour censurer ko te bu ñu ko voté pour censure un vote de censure mhm. le premier ministre dafay démissionné mhm. maanaam dañ naan ko sa politique générale bi ñun ànduñu ci bu mhm. fekkee ñu ëpp nous ci nag bu fekkee majorité absolue bi ci li ngay wax nii nag ànduñu ci réew mu jaar yoon noonu lay doxee ci réew mu jaar yoon noonu lay ah. demee mais en général xam nga lu tax du demee noonu maanaam du yomb pour moi. am parce que bu fekkee euh, kii di parti au pouvoir dafa am majorité absolue bu ñu ko voté même 83 députés suñu voté ni ànd nañ ci rek déclaration boobu day jàll ba tey mbokk yi xam vous li ñu dese ci temps bariwul mais commission ad hoc. Il faut bari lu l'assemblée nationale. commission ad hoc. La ah, commission ad hoc dañuy choisir député. Il nga xam bu dara mhm. xam lu jaral parce que l'Assemblée nationale am droit mhm. mission saytu mhm. il faut ñu une commission ad hoc. la commission ad hoc. commission ad hoc nous lan mo ci responsabilité ku ne ak ku mhm. bu ko defé ñu mëna ñëw rendre compte li nga xam si moom moo assemblée nationale. Mhm. ñun kat liggéey bi ñu santone mhm. kat ci li ak li lañ ci def li ak li lañ ci gis. li ak li mo ci ay xew manam xew-xew bu nek nak dañ ci tànn ñu nga xam ne ay député sage lañ bu ko defé ñu ko constituer la commission ad hoc mais commission ad hoc boobu buñ ko sampé manam bu féké nak li di justice da ci dugg ba eh, ubbi ci information judiciaire rek. mission bobu da fay te té buñ rendre compte assemblée nationale tamit li nga xam si moom lañ leen santone seen solution dafay jeex bu ko def solution adopté ba existé mais n'empêche que bu beneen affaire amee am nañ droit tijjiwaat li nga xam ne si moom moo di beneen commission ad pour ñoom ñu mën a leeral li nga xam si ni par exemple dañ koy ci li nga xam si ni moom moo di bu dara amee ci député bu defee dara mhm. justice war ko topp da ngay gis ñu daal di saisir li nga xamne ci commission ad hoc ñu xol ba xam est-ce que li jarna ñu daal di ci tijji une information judiciaire ba dem ci immunité parlementaire xam nga sax léegi da ci ñëwaat. jere jëf Mountakha xam naa ni mom temps bi da naka xoj nañu. waaw xam naa ni dama lay baye rek li nga xamanteni pap Diop def nako dem démb def déclaration dem ba tay gaay yi di ko coow da nga wax rek li nga xam mom nga ci xam après nga tàggatoo waale téléspectateurs yi. wa effectivement pap Diop lu mu def. Euh, mom xam nga tamit nit su jëlé décision. Uh-huh. expliquer daal ni tamit lolu lu tax mu def ko. Uh-huh. c'est de l'intérêt général. Uh-huh. intérêt askan bi moo tax mu def ko. bu féké c'est de l'intérêt général boobu mu ñu wax moo tax mu def ko. c'est une bonne chose. parce que nit ki bo nekké bu féké askan bi rek mo la tax yëkëti euh, bo jël ay décision tamit bu féké askan bi ñoo la pour nga nekk député. nga demaat ba xamné li warna ko def pour askan bi. lolu baax la. mais pap Diop bu ñu fatali ko mom mo fi doon woté ni il faut que ñi nga xam si ñooñu famille libérale bi il faut ñu ñu dajaloo mhm. kon bu defee li mhm. mën nañu bettuñu mhm. parce que tamit mënoon ni na njaboot gu dajaloo ba pare di di di fa féwul ak njaboot est-ce que mën nañ xaar chaque jour tamit euh population bi ñew jox la seen vote nga ëlbéy ko dem yakal ko kenen parce que ni ko gars di waxé rek yow mënoo romb ay bulletin yu bari jël bulletin euh, Pape Diop dem voter ko après ëllëg mu dem ci majorité bi est-ce que gaay loolu lañ doon xaar tamit non ñu bari nak xaaré wuñ ko loolu mais lu lu lu wax ni yag na fi la. Mhm. parce que bu Sénégal miin nañ après élection. Mhm. nga dem fi nga xam si ni lañ la lu tax ñu fal la sax xex ki fi nekkol motax mhm. après élection nga dem ci mom lolu mom yag na fi té min nañu ko. mais lolu yaakaar naa ne aussi jëlé ko fi du yomb. parce que bu fekkente si ni bu ñu demee élection ba paré ku nekk yaay xol sa cëggal guuy yaay xol lu la arrangé parce que parti politique yi dañu am seen intérêt. té it dañu am lo xam ne calcul la politique lépp calcul la mom gis na ni peut-être euh, rangé wu ci benn bokk car moom moo ko a arrangé que mu dem fekk ku politique mhm. parce que bennoo bi ki la gis kon mhm. mais aussi di leen wax rek ni assemblée nationale bi ñu mhm. assemblée nationale visage lay ni lu bari war nañ ko am ci biir assemblée nationale euh, nekk di gërëmaat bu baax comme euh, ñi nga ñoo doon TV euh, la télé de toutes les générations ñu fi pour expliquer li nga bureau de l'assemblée nationale président président bi ba ci vice président bi ba ci vice président yi ba ci questeurs yi sax mhm. waroon euh, danañ ci ñëw beneen mhm. yoon incha allah loolu mooy seen rôle questeurs yi mhm. li nga xam ne si mooy premier questeur bi ak deuxième questeur bi ba ci secrétaire général yi nga aju ci lépp li nga assemblée nationale bi ba nga xam ne si ni assemblée nationale bi dara dootu leen ci réer euh, ñu dox leen dig dajee rek ba beneen samedi incha allah bu ñu fi teewee rek daal di zoomaat leneen a euh, a téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ngi doon ñoo ñu doon suivre kon nii rek lañ koy defee samedi bi jot lépp loo xamante ni nii fii ba ba ñuy installé député yi fii ba ñuy teg bureau yeeg lépp ba ba ñuy dem plénière dara dootu leen ump ensemble bu soobee dina lay réer fii ci Ngalam TV la télé de toutes les générations ngeen ànd kook seen bopp Fodé Mbow ak Mountaga fii ci Zoom politique kon ñu ngi leen di dox dig daje ba beneen incha allah jërë ngeen jëf